Talla Diakhaté Xelkom def benn round-up de l'actualité indi gis nam si réew mi na muy doxee tàmbale si affaire Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias ñeel wàllub dialogue bi président Macky Sall woote gis na ni kat maire Dakar bi de moo nekk si yoon te sax nag wuy ji boobu muy wujji mooy jàmm réew mi buñ sukkandikoo si moom gis nañu daal président Macky Sall lépp lu muy doxal njëriñu askan wi la ci diggante Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias xam nga Barthélémy dafa wax lu leer jokkoo na ak Ousmane Sonko ba Ousmane Sonko déggoo ak moom ci ay kàddu ngir mu dem def dialogue ci président Macky Sall def war leen ko mën a tuddee bu dee ci làkku olof ndaxte nit bu fekkee da ngeen a tënk dara ba pare la ngeen tënk nga del ci ginnaaw maanaam faxas ca ba mu set loolu war leen ko mën a jàppe mais nag ku ne xam na ni suñu borom dafa am ay wu am solo mu wax ci alxuraan muy wa amruhum sawra baynahum seeni mbir ci diisoo lee lijjanti ko te diisoo weesuwul li Barthélémy Dias def xam ni réew mi fi mu toll dafa waxtaan mu demandé waxtaan ñu toog waxtaan jàmm dikkaat ndaxte dama naan amul benn problème bu am ci àddina bi euh, wala mu am ci wala mu am fu mu mën di am rek ci àddina bi moo xam muy moo xam muy fii ci Afrique wala fële ci bitim réew Euh, te du rek euh, amul solution problème bu mën di am ci kaw suuf am na solution léegi nag solution bi mooy soo ko jot waxtaan mooy soo ko am léegi nag waxtaan su amee rek jàmm am ndaxte moo xam muy ci biiru mbokk moo xam muy diggante réew réew xeex moo xam muy diggante nit ak nit moo xam muy diggante commerçant bi commerçant bi diggante nappkat bi nappkat bi diggante sàmmkat bi baykat bi ku mën doon bu jàppantee tamit ci waxtaan rek la ni mujjee waxtaan boobu nag fi ñu toll réew euh, waxtaan waxtaan boobu nag képp koo xam nag aw moo la ñor taal réew doo ànd ci waxtaan boobu waaye Barthélemy Dias vraiment ñu ngi koy félicité di ko wax félicitation Khalifa Sall tamit vraiment euh, ni ma ko gisee mi ngi ci aw yoon ndaxte nit la koo xam ne euh, jàpp naa ni Euh, bu Barthélemy Dias xaale yoon ñoom ñaar ñoo cay ànd ñu waxtaan ak président Macky Sall jàmm amaa ci réew mi. dellu si waat na si procès Mame Mbaye bi tax ñu daan Ousmane Sonko juróom benni weer ak ñaari téeméeri million ba sax ñuy xëli xala naan dina bokk ak du bokk si élection 2024 yi moom jàpp na ni kat tooñ bu mag la leaderu Pastef bii def moo waral tamit mu mérité lu nu mel si ay kàddoom ba tey. diggante ministre Mame Mbaye ak ki ñuy wax Ousmane Sonko. mu mel ni euh, diggante bi vraiment amoon na ab la boo xam ne ñu bare bari jàppoon na ni sax Sénégal fii lay jaare tàkk waaye nag ñi koy wax mooy ñi nga xam ni seen àll ba guddul ñi koy wax mooy ñi nga xam ni euh, buñ sañoon réew mi nekk ci ay jafe-jafe waaye ku ne xam na ni euh, réew mi réewu yoon la réew la moo xam ne képp ku la tooñ boo ko yóbboo ci yoon jàpp naa ne bu yoon càmbaree lañ bët ba xam ni yow dañ laa tooñ dalay jox dëgg te loolu moo am démb ku ne xam na ne ministre Mame Mbaye Niang coow li na trop ci digganteem ak Ousmane Sonko waaye yoon mujj na jox dëgg ki nga xam ne mooy ministre Mame Mbaye Niang loolu nag li muy wane mooy euh, Sénégal euh, justice bi fi nekk dafa tëddee njaaxaanaay euh, nekkul ni rek da ngay dem tooñ nit daal koy menacer defal ko ay diffamation dem ci yoon ñu jox la dëgg déedéet maanaam yoon moom njaaxaanaay la tëdd fii ci Sénégal képp koo xam ne rek dañ laa tooñ boo demee ci yoon mën ngaa am dëgg moo gën jéem sa bopp moo nekk di xasanteeg saagaanteeg yooyu demal ci yoon rek boo demee ci yoon yoon da lay jox dëgg te loolu diggante Mame Mbaye ak uh, Ousmane Sonko wane na ko démb Mame Mbaye ñu ngi koy félicité ci ndam li nga xam ni yoon jox na ko démb ñëpp xam ni ay mbokkam ak ay nawleem ak ay xaritam ak ñi mu bokkal benn bokk yaakaar ñëpp xam na ni dañ koo tooñoon waaye yoon jox na ko dëgg même fekkee sax xolam seddul guyu guyu loolu dana ko xaw a giifal ba am lu mu wàññi ci maire bi nga xam ne mi ngi ci moom ndaxte nag diffamation dafa metti Talla Diakhaté yi ba tey nekkoon ganub xibaaru 24 TV ñëwaat ci beneen ponk bu am solo muy troisième mandat wala deuxième quinquennat moom la mu jàpp sax nag nee na mooy deuxième quinquennat njiitu réew mi di président Macky Sall ñoom dee waa Touba di waa APR pare nañu ngir nag delloowaat ko ci kaw bopp réew mi ci ay kàddoom bu ñu sukkandikoo ci moom euh, ñun fii ci Touba Mbacké rawat na fii ci département Mbacké ñu ngi waaj bu baax a baax li nga xam ne moom mooy euh, troisième mandat bi nga xam ni euh, moom la ni suñu candidat mooy président Macky Sall suñu candidat mooy président Macky Sall ñun waa Touba Mbacké surtout département Mbacké ndaxte président Macky Sall nag réew mi dafa doyagul ci moom nag day jëmm joo xam ni buñ sañoon mu amaat fa ay mandaay yi mandat ndaxte jëmm la joo xam ni vraiment day jëf te du wax te ku ne xam na ni gone yii ma gis ñu fi nekk di def ay menace de ak di def ay diffamation ak di tooñ euh, kilifa gu nekk ñu daggal la aw saaga ba gën a ñàng jàpp naa ne ku leen jox réew mi moom jàpp naa ni effacé tarixe yi la ñuy def fii ci Sénégal jàpp naa ni euh, li nga xam ne moo fi nekk ci réew mi euh, di ay statues yoo xam ni dañ leen di warmaale di leen ziar ndaxte ay cër boo xam ne suñu borom moo leen ko cëralee am na ñoo xam ne la ñuy wax ba jox leen réew mi jàpp naa ni loolu moom Euh, danañ ko effacé moom jeex tàkk ci réew mi loolu nag duñ ko may kenn réew mi daal réew mu mag ñu tedd ñi la réew mi réew la moo xam ne mag ñi foos yi mën dem muy Touba Mbacké muy Tiwaawoon muy na Baye xam ni suñu borom dafay def loo xam ni euh, vraiment réew la moo xam ni euh, jàmm rek moom moo fa mën a am kon nag képp ku fi jéem a indi jaamaarloo ci sa kaw lay këpp moom Talla Diakhaté yëngu si wàllu politique fii si département de Mbacké moo amaloon waxtaan bu ni mel jàkkaarloo ak Xibaar 24 TV ñëw si ponk yu bari ñeel réew mi muy doxee